ba Abdoulaye bi mu jógee ba léegi mosuñu ñàkk élection ci gannaaw rek loolu nag wax dëgg yàlla sant yàlla moom mënu ko passé sant pour population yi waaye aussi ni ñu koy defal ñu bokk ñu war war nañ ko war nañ ubbi seen bët ñu xool ko ñu xam ko te xam ne liñ nangoon doon ñu ko nangu parce que man actuellement euh, du man man mun naa nangu yu bari mais ñi ma àndal duñ ko nangu parce que tamit muñ nañ muñ gi nag mu ngi bëgg a métti danañ dem istanbul bu neex yàlla kooku moom incha allah waa gannaaw raay moom dootuñu ko nangu ndax ñun mérito nañu am ku représenté gannaaw raay vraiment à l' assemblée pour quand même défendre les causes parce que li ñuy liggéey ak li ñuy def li ñuy def ci élection foog quand ñu mën a renforcer parce que dëkk bi dafa bëri am ñu mu laaj xam nga mairie bi rek mënul régler problème gannaaw raay donc laaj na liggéey yu bari yoo xam ne war war na fi am loolu nag il faut ñu def ñun ñu def ay jéego pour dem wuti pour indi suñ suñu dëkk te man am naa yéene bi euh, am naa yaaxin bi te am naa xol bi aussi waaye nag foog ñu jàppale la te quand même yu bari dina ci am te bu si su yi passé danaa ci waxtaan ak ñi ma ci war a waxal ñëpp pour ñu jàppale gannaaw rek